yéen soppe yi mbokki Sénégal mbokki àddina rawatina yéen ñi féete fii ci diwaanu Njàmbur ak li ko wër ndaje bi ngeen doon xaar yegsi na. ginnaaw xaar ak mbas mi di Covid 19 juróomeeli édition journée islamique et culturelle de la rajo Leral FM 104.6 de Louga ñëwaat na. juróomeeli édition bi ñu jàpp ko ci ñaari fan jàpp ñeenti fan ci yor avril at 2022. fële ca place publique Mansourbouna jàkkaarloog mairie El Hadji Djili Mbaye seen programme diine bu neex seen programme bu am solo seen programme bu fasantikoo ñaari fan ci weeru avril bu 9h jotee ñu ànd ak jéen ci cérémonie officielle bi sous la présence d'honneur d'El Hadji Bouya Amar gouverneur de la région de Louga de madame Mariama Traoré préfet de la commune de Louga monsieur Moustapha Diop maire de la commune de Louga monsieur amadu Mbéry Sylla président du conseil départemental de Louga docteur Eliman Ndiaye directeur Daarul Istikhama imam Galaja Ka président mouvement Alfala docteur Abdallah Lam amir Jamaatu Ibadu Rahman Cheikh Ibrahim Khalil Lo prédicateur docteur Mohamed Abibullah Sy directeur Daarul Iman Cheikh Mohamed Gueye président Mouchaf Ibnu Oumayri oustaz Makhtar Fall président ONG Abi de Louga ak bépp meeru commune bu féete fii ci région de Louga famille feu El Hadji Amadou Sakhir Lo bu Koki docteur Sidou Coulibaly pharmacie Serigne sambay bu Louga monsieur Abdoulaye Sarr MG African Sport et Stratégie kilifa yooyu yëpp ñu leen di xaar ci cérémonie officielle bi ak ndaje bu am solo yemoo ko conférence bi ñu war a ànd ak docteur Mouhamad Ahmad Lo bu 9h jotee docteur di ci waxtaan ci la méthode islamique pour un développement socio-économique et culturel bu 22h jotee ñuy ànd ak yéen ak ndaje bi xale yi doon xaar yemoo ak yu neex ak waa troupe xale yi nga xam ne ñoo féete fii ci diwaanu Louga le 3 avril bu 9h jotee ñu war a ànd ak yéen tamit ci journée alxuraan di concours alxuraan bu am solo rajo Leeral FM lëkkaloo ceeg fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal képp ko daara yitteel ndaje boobu bul ko wutee bu 22h jotee yéen jigéen ñi yéen ak moom association soppe Leeral FM taxawal opération Kay Muuru foofee ca place bu na jàkkaarloog mairie bu Louga waaye tamit dinañ ci ànd ak yéen yéen ndongoy ci loolee di exposé bi nga xam ne dafa jëm ci technique de dissertation philosophique ñu koy animé dañu féete foofee ca BES consulting voyage bu Dakar yemut foofu dinañ ci ànd ak yéen tamit ci remise de cadeau waaye tamit ay sketch di théâtre ak waa Baytul Atfal le 4 avril ku ne 4 avril sa xel dem ci l'indépendance bu fetu indépendance bi jeexee ñu ànd ak yéen ci journée jàng wees buñ nee jàng du wees xel yi dina dem ci njàngam diine ci ñi nga xam ne nag ay adulte lañ ba ci ñi nga xam ne tamit dañuy soog a doox journée jàng du wees fële lay amee ca place Mansour Bouna Ndiaye jàkkaarloog mairie bu Louga kon mbokk yi ak yéen jigéen ñi bu ko kenn wute bu 22h jotee delluwaat fële ca place publique ànd ak xale yi ci anachid yu neex ak troupe yi nga xam ne ñoo ko ci diwaanu Ndakaaru mbokk yi kon programme baa ngi noonu di juróomeelu édition journée islamique et culturelle bu rajo Leral FM 104.6 de Louga rajo Leral FM di ci invité ak di ci woo yeneen rajo yi nekk fii ci biir Sénégal rawatina ñi féete fële ca Keppaax ca diwaanu Kaolack leeral bu Podor leeral bu Ziguinchor ak waa Salaam bu Mbàkke yéen ñëpp ñu ngi leen di wow ci ndaje mu am solo boobee yéen a ko doon laaj yegsi na juróomeelu édition journée islamique et culturelle de la radio Leral FM de Louga du 2 au avril à la place Mansour Bouna en face mairie El Hadji Djily de Louga kon bu ko kenn wute di leen di 104